alhamdulillahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit askan wi nekk di seetaane Eco TV si waxtu bi seen programme yi waxtaani islam dañ leen fi indiwaat week bu nekk dañoo ñëw fii toog si télé bi aw waxtaan ak yéen si suñu wàllu diine islam yi te tamit ñëwaat nañ fii incha allahu rabbi dina leen indil another important topic of discussion ñu yàlla mayee time bi ak kattan bi waaw balaa ñu duggee si mu nuyuwante ak askan bi oustaz asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu fay nañ la bu baax di am mbégte ak kontaante bu baax a baax gannaaw buñ ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di delluwaat si Eco TV di ñëwaat fii nii di aswaat beneen épisode boo xam ne boo am solo la ñu koy waxtaanee pour njëriñu askan bi incha allahu taala rabbi di bàyyi la waxtaan bi. jërëjëf ay oustaz balaa ñu dugg si biir waxtaan bi ñu sant suñu borom moo ñu may fan bi may ñu kàttan bi may ñu wér bi pour ñu mën a ñëw toogaat fii si télé bi mën a am waxtaan ak suñu bokki jullit yi di julli si yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di sant suma ñaari waajur yi suma waajur bu góor bi dellu si boromam di ko ñaanal yàlla xaari ko àjjana fa sedd si kawam te jiital ko képp julli dellu si seen borom yal na leen yàlla xaari àjjana suuf bi sedd seen kaw suma waajur bu jigéen bi ma ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudda yàlla may ko wér gu yaram yàlla may ko kattan bu ma mën a yóbbee njobooti yàlla bàyyi ñu ko fi ba si kanam mu mën a fekkee njëriñu njobooti ñu ñaan yàlla waajur yi yëpp mu may leen fan bu gudda may leen wér gu yaram may leen ah, doole bu ñu liggéeyee pour mën a amee seen njaboot yi incha allah rabi su ma jëkkër tamit ma ko sant di ko gërëm parce que moom mooy opportunité bi pour ma ñëw toog si tali bi mën a waxtaan ak ko gërëm baax di ñaan yàlla ma ko fan bu ko wér bu yaram may a liggéeyee te yóbbu njabooti nekk si ronam yàlla jàppale ko si liggéeyam bi yàlla sutura ko yàlla aar ko aar njabooti may ñaan yàlla yàlla jàppale bi jub boole julliti muslim li ñu bëgg a xam ne dafa gën si ñun yàlla may ñu ko incha allah rabi waaye oustaz tamit du ma ko bàyyi si gannaaw parce que saa yu nekk su ko ooyee fii si ECO international Ustaz is always ready to come to EcoTV International and deliver the important message he has for us waa di ko ñaanal moom tamit yàlla may ko fan bu gudda yàlla may ko wér bu yaram ko kàttan bu ma defee liggéeyam bi yàlla may jàppale ah, bi nga defee sa liggéey bi yàlla jàppale la nga mun naa def sa liggéey bi ni nga ko buggee incha allah rabbi yàlla aar la aar sa njaboot yi mm-hmm. leen si yo barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tamit ah, ñëwaat nañ fii pour am waxtaan ak yéen si a very important topic of discussion moo xam ne moo ne gaa good manners mu ñëw wax ne ah, jikko bu rafet loolu lañ fas yéene waxtaan ak tey bu soobee yàlla bu ñu yàlla mayu time bi may ñu kàttan bi pour ñu mën a am discussion si ah, that important topic waaye su soobee yàlla dinaa bàyyi ah, oustaz mu mën a ñu waxal bu ñu waxee jikko bu rafet balaa ñu ñox si jikko bu rafet lan moo nekk jikko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 di ko jaalewaale Mr président ci Mr Vice President bi nga xam ne muy ba dara juuf nga xam ne làqu na ci démb rek ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla jéggal te xare ko àjjana yal na suuf sedd si yal na suuf oyof si kawam gannaawam yal na bu mu yàqu yal na fu jëm yal na ko gënal bi daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, di ñëw di delluwaat incha allah si topic bi nga xam ne moo waral discussion bi tey nga xam ne mooy lan mooy jikko jikko mbir la bu nga xam ne yàlla sunu borom moom moo koy def ci nit su ko defee ci nit kooku noonu bu ko toppatoo ci boppam da koy njëriñ njëriñ ñëpp jikko ci biir nit la mooy nekk waaye nekkul lu nga xam ne ci luy feeñu la mooy ne ndaxte buñ ne jikko si biir xoli doomi aadama foofu la mooy nekk nekkul lu nga xam ne génn na lu nga xam ne génn la rek loolu noonu lan la melo waaye jikko si biir doomu aadama la mooy nekk kon ku nga xam ne yàlla jël na yow jël na la def jikko ju rafet si yow kon mun nañuy wax ne sa jikko rafet na comme nu mu ko defaree suñu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne jikko yëpp ci moom lañ ko def lii laa la mun a wax ne moom mooy jikko ju rafet Ah, jërëjëf ak ah, oustaz ah, si tontu bu leer boobu mu ne jikko si xol bi lay nekk wàllu feeñ mooy mm. melo bi mooy melo bi mm. waaw jàng naa si loolu boobu boobu lu ees la mm. boobu bu ees la mosuma koo dégg <laughs> loolu is a new word to me waaye jërëjëf si tontu boobu waaye tamit jikko bu rafet moo nekk suñ euh, topic of discussion man euh, du ma si wax lu bari parce que yow laa indi fii pour ñu mun a waxtaan ak ñun si jikko bu rafet bi léegi bu ñu waxee jikko bu rafet euh, white in detail ma bëgg nga waxal ni si la jikko bu rafet jikko bu rafet dina nekk si nit lépp loo gis yàlla mu defar la ñaar lam si defar benn nga am jikko bu rafet bi mbaa nga am bu nga xam ne mooy safaan bi te ñu ñaan suñu borom su ko defee képp koo xam ne doomu aadama jullit nga rek yàlla moytu loola la safaan bi ndaxte boobu dafa am doole torop jikko ju rafet melo la bu nga xam ne ci biir doomu aadama la nekk waaye day dem ak moom mooy dundal xolam mooy dundal askanam waaye mooy dundalal réewam suñu waxee ne nit jikkoom dafa rafet dañuy seet kooku noonu nu mu def ba am jikko ju rafet ndax dafa tiye làmmiñam ndax dafa màndu ndax dafa yem ndax jàmmkat yàlla la ndax ku nga xam ne la duy saaga nit ku nga xam ne duy wax nit ñuy lu bon ku nga xam ne day digal nit ñuy lu baax di leen di tere lu bon lépp loo xam ne bugg mu ngi bugg a ñaaw rek mu rafetal kon kooku noonu mën nañu wax ne kii jikkoom rafet na ndaxte lan du bàyyi lépp loo xam ne mu ngi war a yàqu mu koy seetaane noonu naan suma yoon nekkut si borom jikko ju rafet jikkoom si boppam dina ko jël mayee ko mu tasaare ko ba nga xam ne si place bum nekk sax dina fexe ba waa place boobu noonu jël si taxandeer bi taxandeer buy gaay di jël noonu dañuy xool ci moom moom ànna lan la meloo naka la mel jikkoom nu mel ci biir société bi naka la ndaxte dangay gis ñoo xam ne palaas buñ ne ñoom ñooy fexe barul palaas boobu noonu si lan si seen jikko ak si seen melo nuñ mel moom du wax ne nit ñi tànn leen ma waaye nit ñi si boppam ñoo koy tànn ngir lan moom nu mooy dundee ndaxte da ci gis ñoo xam ne dañ teey dañ em xam seen bopp xam seen palaas xam ñu war a jox cër xam ñu war a magale ñu war a yaayale ñu war a bàyyale ak ñu war a rakkale kon kooku noonu bu nekkee si palaas nit ñi xool ko ñëpp sopp ko bëgg ko kon ku ko gis. dina wax ne kat diw de jukkoom rafet na ëllantu ko woon ma mel ni moom kon te dinaa def lu raw waaye comme ko kooku noonu mu ci société bi dañ fexe ñu lan roy ci moom ñuy xool ci moom ndaxte nit fu nga koy tànnee ne nit jukkoom dafa rafet comme ni ma ko waxee ci gannaaw dañuy seet naka la dëkk nit ñi benn ci biir këram foos to foos comme olof yi ni ñu ko dee waxee bala ñee wax ne diw dafa baax dëkkandoor yi ñoo koy wax bala mbokk yi di ñëw ndax te nit kii boo dëkkee ci sa biir mbokk yi lu mu yàgg-yàgg da ngay génn gaay nga dem taxaw beneen place ñu nga dëkkal nag ñu ñooy xam yow sa jikko naka kon di gis ne façon nit ñu yoonoon suñ dëkkee ñoom suñuy ut lu baax wala bugg a def lu baax su ñooñu lañuy dem waxtaan ak ñoom ñu seet ban anam nga xam ne moom lañ ñuy jaarale bari na ñi nga xam ne dañ amee jikko dëgg la waaye lu leen yàqal mooy gaaw mer nit ki waruloo nekk saa yu nekk rek ngay gaaw a mer ndaxte daf lay yàqal lu bari yow tey buñ la xamoon na nit ku baax nga waaye lu yàq sa àdduna rek mooy gaaw a mer lu nit wax rek nga gaaw mer mbaa nga gaaw a gisee ko neneen kon yow balaa nit ñi dem ba di la tànn wala ñu jiital la dina métti torop kuñ jiital si kanam faw mu déggalu ne exemple suñ président dañuy dégga ñu leen di sànni lu ne waaye dañ koy muñ noppi bu nekkee ne lu nit ñi wax rek ñu jóg attaque bu yàggee dara du baax lépp ay ñaaw moo tax jikko borom nu nu koy olof di ko waxee ñu ne jikko borom ba ci biir pax bi te dëgg la noonu lañ koy waxee am na ñoo xam ne nu ñu seddee noonu ak nu ñu noppee noonu ak nu ñu yaree noonu noonu la ñuy deyaalee maanaam ñun duñ xatal kenn duñ di kenn duñ yàqal kenn yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne moo gën mbooram mbindeef ba ñu ko yàlla asile mu ne nañu xool si moom nañ roy si moom mm-hmm. ndaxte yonent bi du ñaawal yonent bi du ayibal musu ñuy dégg fu mu waxee ne nangamati nangam loo xam ne lu safaan la lu baax lam ñuy digal tere lu ñu bon bu gisee li mu war a nëbb da koy fexe suturaal borom wax ak borom si ron ba nga xam ne kenn du yëg lu xew defar ko ndaxte dafa am benn bés ñu toog ci jumaa ji ñoom ñëpp ak saxaaba mu am benn waay ju jógee fële ne la ñoo dugg si jumaa ji rek yàqa jumaa ji maanaam tuur fa ndox saxaaba yi jóg ne yonent bi kii dañ koy rey mi leen rey mi ne leen déedéet kii bu leen ko rey lu mu def xamut ko bàyyi leen ko ndaxte boo leen ko reyee tey dingeen lor nit ki lii nekku tayee fam waaye suñu waxee moom bés bu gisatee jumaa lu fay tilim sax dina ko fomp gis nga si biir loolu noonu si la ko yonent bi oo mu ne ko kaay ne ko fii dee palaasi jàmmukaay yàlla nekkut palaas yi tuurekaay ndox bu beneen yoone boo ko soxlawaati wan ak yaa ngi fii demal foofu noonu si lañ jël ndox tuur ko foofu noonu defar foofu moom rafet ñu génne ko foofu noonu si biir loolu nag si la ñaan yàlla yàlla na ma yërëm man ak yonent bi nii léegi nag bàyyi ñu na ñu des ci gannaaw ñu nga xam ne ñun ñoo ko bëggoon a rey xam nga ñuy ñun tamit bu nekkoon ne am nañ jikko boo xam ne wala am nañ xelaat bu gaaw si wax bi nu ma ko waxee maa ngi jégalu bu baax waaye xëy na gars ay saxaaba xëy na gars yi seen xalaat àggutul foofu noonu yonte bi mu xalaatam moom la àgg foofu noonu loolu moo tax mu ñaanal leen waaye ñoom tamit suñ demoon ba xamoon na noonu la konte duñ ko doon wax dara dañ koy bàyyi ba mu pere su pere ba mu xam ne defar na lépp ñoom tamit ñu oo ko ndànk waxtaanam bokk na si jikko bu rafet teey ndaxte dafa baax si doomu aadama teey daal calm down ba nga xam ne lu nit ñi wax yow fexeel nga xam am si lan risol bu correct risol bu leer bu nga xam ne yow ëllëg ci biir soo ko déggee di nga xam yow fooy jaar tëll rek mata ba dama na rek déedéet mun na am mata bi dafa dóor jàll waaye dara damut jikko dañ koy jàngaat jikko dañ koy study comme ni ñuy toogee di study buggi ni ñuy toogee di study buggi noonu la war a toogee waate di study ndaxte nit ki mun nga xëy suba ba ngoon nga man lan laa def tey nga toog di xalaat exemple nga ne tey jàng naa Qur'an saraxe naa def naa lu baax saaguma kenn waxuma kenn lu baax farata yépp def naa ko naafale yëpp def naa ko est que man lu ma jikkoo nii ndax baax na wala baaxut nga xëy suba ba ngoon amuloo benn bàkkaar boo xam ne yàlla bindal na la ko ngeen kon nag lii nag jikko la bu nga xam ne su ma dundeek moom man dinaa mucc ba pare lu bëri yàlla dina ko def si yow kooku noonu bu demee ba xelaat loolu noonu kon du dellu gannaaw dina gis ne moom si lu mu nekk lu baax la waaye su nekkee si opposite side bi la boo xëyee ngay wax lu bon di def nangamati nàngamati nangam war ngaa mën a refresh sa mind bi ne lu nga xëy def si ba ngoon lan la est-ce que jag na wala jagut su nekkee ne jagut nga dem tuubaat nga waxtaan ku nga xam ne xëy na xam na si dara mu dimbale la bu ëllëgee si biir naka ngay fexe ba rek loolu noonu moo tax comme english nu ko de waxee let learn our mistake mu ne nañ jàngee si sun mistake yi nga xam ne ñu ngi koy def kon bokk na si jikko yi ngay jàngee lan si sa mistake yu ngay def parce que dafay bari nit ku nekk bugguñ ñu lay wax ne yow nangamati nangam sa jikko bi baaxul sa jikko bi rafetul yow da nga bari wax danga mën a saaga danga nga mën a kébatu kenn ku nekk day bañ tuur boobu noonu wala ñu naan la yow jowkat nga wala fenkat nga lu nit ñi wax rek nga dem tasaare ko yaakaar naa ne jikko jooju noonu benn jullit ñaanul ko yàlla mu amee ko waaye ba tey mu ngee daw waaye ñu ñaan suñu borom rek incha allah mu génne ñu si façon yu mel noonu soobee yàlla waaw kay jërëjëf si leeraange boobu li nga wax noonu am na solo trop jikko bu rafet dafa nekk loo xam solo trop si doomi aadama dañ war a traité conculcate it into our system dafa nekk loo xam ne dañ ko war a comme oustaz suñ ko dañ ko dañ koo study mais dañ ñoo study suñ liggéey kon jikko bu baax tamit dañ ko war a try dañ koo study ñu study yu baax yoo xam ne dañ ko war a da ab def ko si si ñun ñu mën a xam lu baax lu ñoo def nga jël suñ jikk yi mu mën a rafet waaye dama oustaz may bëggal la ci lan la suñu diina wax si jikko bu baax ak ay yonante bi lan lañu lan la ñu diggal si jikko bu baax jërëjëf si sa kàddu boobu noonu yonutu bi sallallahu alayhi sallam daf ñu wax si benn xadis mi ne akmalul muminu imaanan ahsanahum xulqan ku gën a mottali ngomam mu ne ko ku gën a rafet jikko ku gën a mottali ngomam mu ne ko ku gën a rafet lan jikko ndaxte dafa am loo xam ne daf ko ombaale mooy lan gom yàlla góom yàlla góom yonent bi góom malaaka yi gëm téere yi gëm keroog bés xiyaam yaakaar naa ne lii boo ko gëmee ba pare mu miin la wax de ahsanuhum xuluqan ku gën a rafet la jikko si ñoom léegi rafet jikko boobu noonu dafa am lu bari lum laaj comme ni ko waxee si gannaaw ndaxte nit ki duñ ne la da nga rafet jikko ba pare ngay saaga nit duñ ne la dañoo da nga rafet jikko ba pare ngay wax nit ñi lu bon duñ ne la da nga rafet ko ba pare doo musa digal nit ñi lu baax buñ ne la da nga rafet ko ba pare yow foo gis loo xam ne safal la doo ko mën a teree nit ñi da bàyyi ngeen waaw lii sama yoon nekkul si mbaa nit ñi lu la neex la lañuy def wax nañ ba sonn du noonu dimbalante la suñ biir ba lépp taxaw ndaxte kenn ku nekk nga xëyut dox siit raam la njëkkee toog di daanu dox di daan bañ jóg taxaw kon ñun lépp loo xam ne ñu ngi koy def suñu borom mu ngi koy xool waaye nañ fexe lan am jikko bu nga xam ne mooy jikkoog diine islam nga xam ne moom lañ war a jikko ba pare tamit mu teg si ne ku gën a gën si nit ñi moo nekk boroom jikko bu nga xam ne nit ñi ñëpp dañ ko tànn ñëpp nga xam ne dañ ko tànn sopp ko comme nu ñu def yonente bi sallallahu alayhi wa moom bala moo ñëw bëri na yonente yu nga xam ne xam nañ ko moom si boppam bala moo ñëw bëri na boroom xam-xam ak boroom yonente yu nga xam ne dañ wax si moom ngir lan xam nañ ne kooku noonu su ñëwee dina am lu mu def si diina bi dina am lu mu mottale si diina bi moo tax muy wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ ma assis ci kaw fii nii ngir ma mottali jikko yu des maanaam jikko yaa ngi fi de waaye am na lu des ngom bi si boppam dañ ko war a mottali ragal suñu borom suñu boppam dañ ko war a mottali ak lépp lu baax loo xam ne war na ñun suñ diggante ak suñu borom dañ ko war a mottali ndaxte mbir la bu nga xam ne ñu ne bu keroog yowmal xiyaam dinañ seet ñu nga xam ne ñoo gën a noonu am jikko bu rafet boole ko ngom ñu dugaleen ajana kon di nga gis ne loolu noonu palaas bu dëgër la wala mbir mu taxaw la bu nga xam ne kenn ku nekk dañ dañu dañu war a fexe la seetaat yenn jéego la ñuy jël fexe ba jaar ci yoon yooyu noonu yoon yi bari na nit ku nekk ak meloom nit ku nekk ak meloom nit ku nekk ak na ko yàlla bindi nit ku nekk ak nu mu ñëwee ci ako àdduna bi xëy na am na koo xam ne yàlla bi na na ko mu bëri problème bëri wax waaye xol bi dara nekkul si am na ñoo xam ne noonu lay bindoo bëri nañ problème bëri nañ lu ne waaye seen xol dara nekk si ndaxte lan du ñuy jàpp dara am ñoo xam ne noonu la ne yàlla bind am na xam ne du wax dara dañ naan teg sedd guy comme ndox du ñu wax dara waaye am na ñoo xam ne yàlla daf leen def ñu bëri wax comme su ma maase fu ñu leen fekk ñu ngi teel si teel si xamul fan la ñuy taxaw am na ñoo xam ne noonu la leen yàlla bindee. waaye bu ñu yàlla bindee noonu mi ne leen dinaa leen as exemple ndaxte foog naa ne mathématique soo koy def teacher bi bala moo ñëw mi ne def leen woog nangam yaakaar naa ne exemple la moo asi mi ne leen this are the way to do it soo exemple baa ngi nii def leen ko ñu jël exemple boobu noonu xool ñu ko dawaati sax stage yu nga xam ne foofu la jaar one by one one by one one by one ba mu àgg si x equals to one su àggee foofu ne x equals to one ñun tamit yàlla mi ne nañ xool si yonent bi fu mu jaar ba juboog boromam ba ko boromam tàgg ñun tamit nañ fexe métti na nag waaye nañ fexe jaar lan foofu noonu ba nga xam ne yàlla yëg ne de su ma nit ñi jaar nañ fa loolu noonu yaakaar naa ne buñ ko defee boo noonu tamit beneen simple wee bu nga xam ne nit ñi yëpp dañ see mun a lan rëcc ndaxte tey bëri na jikko yu yàqu yu si ko àdduna mi kenn xamul lan moo ko yàqu xamul na topp ndoor la xamul na topp sa bànneex yu bakkel la xamul ndax ñàkk a xam sa diine la xamuñ ndax lan lan lan lan moo ko waral waaye yaakaar naa ne léegi jamono toll na foo xam ne nit ki mënut a toog mi ne lii xaw ma ko si diine amut woon métti woon na nit dina jóge bànjul ba base ngir laajte benn woot ci araab ngir mu xam ko lan la mooy firi ak suñu borom ñu si wax ñoo ñu noonu si boppam alxuraan lañ jël gëm yàlla ragal yàlla lañ jikkoo woon ba mu leen di jaral ñuy dem place to place ngir lan lijjanti xam-xam boobu noonu ñun nag léegi internet banque fi mobile yi ñu fi fees fi del kenn mënut a wax ne mënumaa type mënumaa bind soo mënut a type am na ku la mun a type soo munta laajte am na ku la mun a laajte yow boo laajte wut dinañ wax nga dégg yaa ngi bokk ci groupe bi message yi ñu ngi ko fay seen ñuy wax ci mbiri diine ñuy wax ci mbiri jikko kon yaakaar naa ne diggante boobu noonu amul dara loo xam ne war na laa mun a ump métti na xale yi génération buy mujjee ni wala ci génération buy nekk ni man dama day tok ma day gis yo xamne ne man dama day jaxal torop man nit nakala mu ne ay fan ci gannaaw aw ma ñaari fan ñetti fan ma ngi romb ben koñ di dox di dem man ci si man dal dama tok rek ben mag boy ko am ni man di saaga ben xal bu tuti ni mu koy saaga saaga yu ñaaw yo xamne man xamul lu xew de man dama tok rek gesto deg boy ba ngee saaga xale ba ngee daw di dem mu koy rey di dem ma ne ko waaw ndegam mag bii moo jël xale bi du ko saaga xale bi bu demoon bu demoon ba tolloo moom bu feew nu may mel te yonent bi mu ne koo xam ne saaga nga nit mi ngi mel ni sa waajur nga saaga te booy bi saaga yu ñaaw lu mu doon saaga xale bi xale bi lu mu la def ak lu métti métti boo ko saagee moom tamit mu jàpp ne saaga boobu noonu am na lu may faj moom tamit bés bu mu demee ba mag boo ko waxee rek mu delloo la ko waaye xale bi ak ree ak daw lam ko boolet fexe ba ci mu bàyyi ko noonu ndaxte su taxee ko noonu dina ko dóor soo ñu fexe jikko yooyu noonu ay gaaw a saaga ak gaaw wax lu bon ñu téye ko si làmmiñ ndaxte yow mal xiyam dina bëri làmmiñu forox yoo xam ne làmmiñ yu nopp yoo xam ne yépp saaga moo ko waral te saaga si boppam baaxut waaye léegi askan bi dafa dem toll fu nga xam ne benn ñaar dangay mistake rek saaga yu commencé daw man may lacc ndax lii wala jikko la wala soko waxe ndax dang nga am tiabo wala ndax soko waxe dang da am boos wala nakala. ñun legi boy ñu may deg compétition saga la ñey def ku dàqa saga sa morom ci làmmiñ bu ñaaw rek ngeen ni la ndeysaan suma mbokk mbokki yi nga xamne fuñ tollu ñom lu nekk la ñey deg yenn saa damay tok moto sa ben drive bi jekki jekki rek saga gaa ngi astafurlah man fu mo tok damay sedd guy melni dañ ma jam damay am kersa damay ruus ngir la génne yooyu noonu si gémmiñ rafetut jàkkaarloo nit saago si boppam sax waxuma la sax ñàkkaa jaar si yaayam wala papam sax waaye jàkkaarloo nit rek ngeen ne ko nangam rek loolu si boppam sax dafa bonagu kon su nekkee ne jikko yooyu noonu dañ ko jikko nañ fexe fay jikko yooyu noonu ñu xool naka laa yonent bi sallallahu alayhi wa di ko daan doxale ñu ànd ak moom ndaxte yonent bi def nañ ko fii lu ne jam nañ ko dóor nañ ko boole ko nit ñi ay dof ñu koy riite boole ko lépp waaye terewut ba yàlla bugg wax ne yonent bi ndax mun nga maa may ndigal ma alag ñi déedéet mi ne ndax ma alagal la sa nit ñi mu ne ko déedéet xëy na dañ maa xamut rek waaye bàyyi leen waaye tey man jàllu jëriit man boo ma jamoon tey duma la lijjanti foo ma jamee foofu laa jël xeer jam la ñu ema wan wan te ñu ne mbaam bu la weexee nga weex ko yéen ñaar yéen a yem kon xoola yonent bi naka la yërëmee ñu ñu ñun ba ñëw dem ba nga xam ne ñoom ñëpp diggal nañu si islam lu ko may lan dal teey moo ko ko may te dal ak teey dafa bokk tamit si jikko ji rafet yonent bi su dalutoon teeyutoon mm-hmm. konte ba message bu nu si moom dafay wax rek ñu def ko ndaxte am na yonent yoo xam ne seen nit ñi noonu lañu leen alage ñii dañ xaar suuf si dugal leen si ñii dañ taal ay xeer seen kaw ñii ñu xaaj suuf si rek ñu ñëpp ñu dugg rek benn ñu tëj ñii ñu alag leen si ndox lu nekk am na waaye ba yonent bi ñëw dafa pàgg loolu noonu yépp kon nga xam ne jikko si boppam ñépp ko war a jàngaat jikko si boppam dañ ko war a jàngat xaasasataam noonu muy wax ni xaw ma ndax suma jikko ji rafet na walla rafetut yàlla xam waaye ñu ngi fexe góor góorgóorlu ñuy royaate si lu baax roy lu baax moo am solo roy lu bon si yàqute la lay asi kon mën nañ laa bàyyi nga continuer incha allah boobu Euh, programme bi mu ngi interesting macha allah oustaz mu wax loo xam ne dafa am solo trop. Mhm. te jikko rafet dafa nekk jikko bu rafet dafa nekk loo xam ne dañ ko war a dundee jikko bu rafet dafa am solo trop si doomi aadama waaye comme ni nga ko waxee ne léegi ne ni nga si jamono boo xam ne am nañ opportunité pour xam si diine parce que boo toogoo si jàng daara yi nga jàng sax. Mhm. yaa ngi amee sa mobile yi. Mhm. boo duggee si social media bi da ngaa gis everything about di islam waa léegi dinañ xalaatuñ loolu sax ku toog si mobile la bi mu ngi lijjante leneen. waa nekkul di xool loo xam ne diine bi sax mu ngi ko wax surtout loo xam ne sax ay jikko yu rafet la mhm. jikko bu rafet mhm. jikko bu rafet dafa nekk loo xam ne man si man dafa ne moo ko war a def si boppam mhm. waaw yaa ko war a traîner sa boppa jàngale ko sa boppa jikko bu rafet kenn juddoo wut ak jikko ku nekk da nga juddoo wàll da nga juddoo a ñëw si àdduna da nga juddoo da nga ñëw step by step step by step ba nga maaj bi ñëw kon jikko bu rafet bu ñu ko asuñu waajur yi jàngalee at the early stage. Hmm. bu ñu demee ba ñun sa ñu mag ñu xam àdduna bi war nañoo travail always ñu add something boo xam ne xamuñ ko woon. Hmm. te parce que parce que boo demee ba nga mag dangay gis loo xam ne si society yow xam nga ne lii baax na. Hmm. ak lii baaxut yow war nga xam ne li nga war a tànn lu baax moo foog si ma gis-gis. ma foog ne moo war a gën nga war a tànn lu bon lu si sa xalaat. soo dafa am luy soosee di wax ñu ne. daaji ko doo wala ko moo sàmba mu am tamit gaa di wax ne ila sondomo naamam fem bete yaariŋo muta ata fem muta la ñu ne moo ila xaw ma na noonu lañ ko dee waxe comme nit sa baax nit ñi ñoo koy xam ba nga juddoo yoo xamaguloo lii banta la wala weñ la wala lu wow la wala lu tooy la dañ la doon téye di la teete di la waxtaanal nga ñëw ngay màgg ndànk-ndànk soo demee def lu bon ñu asi teg lii ak lii ak lii bul ko defati boo demee wax lu bon ñu ne di téye sa gémme bul dëggaa wax naa xam nga si biir loolu ñu ngi lay jàngal ngay mag ndànk-ndànk ngay mag ndànk-ndànk ñu jël la dugal la school suñ demee si assemblée teachers yi dinañ wax mm-hmm. ustaas yi dinañ wax am leen lan jikko bu rafet mm-hmm. soo bàyyi xel si baaj yi school baaj yi mm-hmm. dañ fa def discipline hard work excellent soo discipline boobu noonu am na lu mooy tekki discipline boobu noonu am na lu mooy tekki jikko la mooy tekki ndaxte nit ki bu ñu lay jàngal dañ bugga lan nga am jikko ju rafet gis nga boo fi amoon xam-xam ba ñëpp naaw la tamit am alal lu si biir am àdduna ak lu si biiram nga sa jikko bu rafetute dañ lay romb fii mu ni football bu yàqu kenn amul si soxla ndaxte nit ki keroog ba nga juddoo yow dara toppul la si am xel waaye lan si màgg bu ngay màgg noonu si lañ lay tiré nale léegi nag yow soo xalaatee depuis mooy nekk xale am na loo xam ne su suma waajur digaloon na ma mi ne ma fu ma toog naa wax lu baax naa def lu baax su ma gisee loo xam ne lu ñaaw la ma sori ko wala su ma gisee loo xam ne lu ñaaw la jëm si man ma daw bàyyi ko fa yaakaar naa ne loolu yoon yëpp dañ dañ la ko dee wax ba pare tamit yónni mi ngi wax si benn xadis ne mi ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut ku gëm yàlla gëm keroog ba si yowmal xiyaam mi ne nga wax lu baax mbaa nga noppi te foog naa ne si jikko yi bokk na si lan wax lu baax kon bu nga demee ba nga xam ne yaa ngi commencé mag xoolaatal àdduna bi jàngaat ko bu baax fan ak fan ak fan la fa laa war a teg suma tànk ndaxte boo ko defutee rek di nga gaaw am lan failure bëri na ñoo xam ne tey lu leen sànq seen àdduna moo nekk la ñàkk xool ak ñàkkaa a xelaat fu ñu jëm ak fu ñu bàyyi ko ak ba fan lañ staté ndaxte nit kii dafa xëy rek commencé di def yow màgg nga si ko àdduna bi bala ngaay ba nga demee ba nga commencé mag ba nga xam ne léegi am nga xel bu nga xam ne mun ngaa toog laajte laajal ndax nit ñi lu ñuy def ndax lii baax na wala lii baaxut lii lan moo si yàlla wax lan la si alkuraan wax lan la si diina wax loolu man gis naa ñoo xam ni yal si yàlla xiir ñu ngi koy def ñu ngi laajte xamuñ ndaxte xamuñ lan fuñ fuñ jëm koo xam ne xamuloo foo jëm mm. laajteel fan la yoon bi nekkee mm. ñu jaarale fa bala ngaa dem dugg si gàjj bi mbaa si dëj ñu lay jam sa tànk bi yaakaar na noonu la war a demee te nit yi léegi toppandoor moo bugg a yàq gis naa diw muy def nangamati nangam laaj ko diw lu ngay def nii foo ko teg lu si yàlla wax waaye déedéet comme ko ñëpp a koy def rek ñun ñëpp ñu ñëpp ay def. lu gars yi luñ dee wax non ñun bàyyi léegi dañuy doxal life suñ demee ba nekk mag ñu tuub yàlla moo la wax ne di nga nekk mag yàlla moo la wax ne dina la xaar ba nga tuub. yàlla nga xam ne mu ne mbiram su ñëwee amul xaar ma ma naan amul xaar ma nangam si saa si mu jël la yóbbu du la xaar sax nga jàllale dara si tàng tàng bon lam lay jële yóbbu ana ñu fi juddu woon ees gaañ ana ñu fi màgg bañ dem bañ am yaakaar ni kii suy jeexal school rek nangamati nàngam dina ko am anamu dem na ana ñu nga xam ne dem nañ ba am soxna tey ba yaakaar na suba dinañ leen la asi seen jabar ñu nelaw te ana ustaas yu fi doon wax yu fi doon waare di digal nit ñu bari dem nañ te kenn ku nekk seede bi di ko am de seede bi mooy keroog ba nga gaañoo dinañ toog seede te lu ñuy seede yëpp malaaka dinañ ko fekkee si jikko bi lañ koy commencé boobaa sa tur ay soti Ibrahima mbaa uus dafay fey xamul ñu asi sa jukko ji si boppam melokaan bu nga melokaana woon boobu la asi ku baax la ku yaru la ku noppi la mën na julli saraxe maye yërmande di seeti nit ñi di baalal nit ñi di dimbalante nit ñi lii keroog moom ngay jukkoo bu nekkee na nag moo nekkoon si yow malaaka yi lu baax lañ lay bindal certificat bu ko rek lañ lay bindal ñu stamp ko yóbbu ko si suñu borom yaakaar naa ne boobu mooy mujjee bu nga xam ne ñu ngi koy seede si yow leneen lu si des rek ay ñaan la rek kon képp koo xam ne sóoraale nga bés bi yaakaar naa ne war ngaa mën a préparer sa bopp nga defaraa la si ko balaa leneen di ñëw di la si fekk dee du tàggu kenn du yëglu kenn xamul xiif nga xamul regg nga ba suur yaa ngee dawal moto yoonam nekkuti yaa ngee waxtaan si biir programme am yoonam nekku si yaa ngee julli yoonam nekku si yaa ngee naafila yoonam nekku si yaa ngee nekku si moom daal ba sa time bi jotee xob bi rot cuk jël nañ ko yóbbu nañ foofu noonu lañ laa jële yóbbu ñu bëri fuñ toog naan xaaral ma dem jàpp julli fuñ toog naan xaaral ma dem jàppi julli fuñ demee téye satala bi nii toog commencé jàpp foofu lañ seddee am na ñoo xam ne si biir ruku foofu lañu sedde am na bu ñu wax fii Latrikunda booy bi xam naa ko Sirifo la tudda bi si àjjuma la si jumaa Latrikunda bi foofu nag bu mag bi fu nit ñi rukkoo ne moo tam rukkoo ànd ak ñoom sëgg tiye tànk bi nii nit ñi rukkoo nañ lu yàgg moom mu ngi sëgg rek yaa xamul li xew si biir jumaa bi moom daal dañ laa niiram ne karab em ak si bés bu tedd bu mu gaañu kooku bu ko fekkoon nekkutoon ju julli wala mun si la ne li nga koy seddal kenn du xam loo koy seddal waaye su julli lañ ko fekk te si biir ajjuma si la gaañu bés bu tedd boobu noonu nga xam ne yàlla keroog si bési àjjuma si la dee wàcce ay yërmandem si la dee wàcce ay xéewalam lépp si àjjuma bi la ko def soo xoolal kooku noonu bés bu rafet bu am kon ñun tam nañ fexe jikko yu nga xam ne manqué na ñu fexe di ko mottali ñuy laajte ñuy xam bu nekkoon ne nekkuloo xam ne nit ku baax nga fexeel góorlu xool bi nga defar ko am na ñoo xam ne moom seen xoolee dañ dee already mënuñ koo ekkatiwaat moo raw injin bu lifin kuule moo raw injin bu kuule mënuñuy rafetal dara ñaawal rek am na ñoo xam ne fu ñu toog nit ñi rek duñ bàyyi kenn dara wax ju bari je wax ju sew nañ fexe fay ko fel na ñu xool suñ diggante suñ borom ak fu ñu jëm képp koo xam foo jëm di nga defaru waaye comme que xamaguñ fuñ jëm yàlla si boppam daf ñu nëbbu boppam mu ne ñu nag soo leen bëggee yegg si si man fii ak fii ak fii ngeen di jaar kon nañ fexe yoonu yoonu ñu jël jaar fa wan nañu exemple yu du jeex yu du jeex si ko àdduna bi loo xelaat rek yàlla wan nañu ko nangam boo ko defee rek lii ngay am te dafa wax ne jikko ju baax mi ngi mel ni ku nga xam ne day or bëccëg bi di jullu guddi gi boroom jikko ju baax mu ne feyam bi mi ngi mel ni ku nga xam ne day or bëccëg bi di julli guddi gi xam nga ji orkati bëccëg bi feyam nu mu am jullikati guddi bi feyam nu am te yow ñaari rakk yoo toog julli ko sa borom tiyaaba bu lay yàlla dina bindal kenn xamul nu tool toll or booy or nga xam ne yàlla mi ne moo koy fayal boppam or boo nit yi dañ xam naka la tool mi ne na jikko ju rafet na noonu la mel sa jikko bu rafetee baax ñëpp sopp la bëgg la te nga teg ko si yoon mi ne dinaa la fay tiyaabo ju am noonu kon man ak muy ñuy wax ñun ñëpp ñoo si yem dañuy góor góorlu rek waaye suñ jikko ji àggagut fu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam àgg lu dul lan topp si tànkam rek topp si mooy tax ñun ñëpp ñu xam fuñ jëm ndaxte suñ exemple yëpp si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak mag ñu baax ñi nga xam ne yàlla moo leen wàccee woon fii ñoo yi nga xam ne dañ ñëw ñoo tamit ñu am luñ si yokk di ñu wirdaloo di ñu julliloo di ñu jàngaloo alxuraan di ñu yóbbu si daara bi fu ne programme yeeg conférence yëpp ngir lan suñ diggante ak suñ borom erek yow man xëyam rek ngir mu rafet bu rafetee rek yàlla bëggu na lépp ndaxte yàlla mi ne bu ñëpp toogoon doon mooy yàlla moom du ko wàññil dara bu ñëpp toogoon doon jaamu yàlla lu mu waree kenn du mooy kenn du sàcc tamit du ko wàññi moom si nguuram bi dara kon nag loolu dem nañ bañ koo xam kon nag luy safaan bi nañ fexe bàyyi ko fële ne ñu fexé ñun neen ñu xamné ñun ñëpp doomu adama lañ ñoo fi bokku nek kéro bésu yow ma xiyam kenn du xàmme kii aysata mariama binta wala khadi kenn du tal kenn kenn du tal kenn kenn ku nek sa bop nga tal kon nañ fexé rafetal bu ya kéro yow ma xiyam yàlla rafetal suñu bir yaakaar naa ne lii lañ fi déssé ci ko aduna luy nit ñi di wax yëpp wax nañ ko xanaa ñu dañoo ñëw di répéter rek waaye lii yàgg nit ñi yàgg nañ koy di ko wax yàgg nañ di ko conférence yàgg nañ di ko toogee si penc yi si moto yi fu nekk nga koy dégg nañ rafetal jikko nañ baaxal nañ yéwénal nañ sutarante nañ ah, nañ màndu si mbir yépp yaakaar naa ne lii yëpp wax nañ ko ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog mu ne leen amoon na jamono si gannaaw am na ñu nga xam ne am na lu leen alagoon ñu ne ko ah lal la mi na leen jamono jooju noonu su borom alal sàccaat maanaam dañ ko daan nëbbu. borom alal su sàccaan dañ ko daan nëbbu ba nga xam ne du feeñu maanaam duñ génnee naan kii borom moom si boppam moo sàcc dañuy fexe ba nëbbu kooku noonu ba nga xam ne dara du xew. waaye ñu ne ku nga xam ne baa doola la bu sàccee dañ koy oo ba pare àtte ko te àtte ku sàcc mooy lan ñu dagg sa loxo bi yonent bi nag mu na jeex na fi amatut mi maa ngee géñ si lu nga xam ne moom su diggante loxo mi ne bu nekkoon na faatumatu mii su doom moom moo sàccoon dinañ dog loxo bi kon foofu noonu wane na te jikko ju rafet màndu si la bokk kon ñun tamit nañ fexe di màndu si diggante doom yéeg jabar yeeg liggéeykaay yeeg palaas yéeg ak mboolem palaas boo xam ne ñu fa ak palaasu xeeti àtteekaay ñu fexe ñu màndu ku nga xam ne tooñ na ñu jox ko àq yaa tooñ ku nga xam ne dañ ko tooñ ñu jox ko àq yaa tooñ waaye dinga gis ne ku nga xam ne dañ ko tooñ sax ñu jël mbugal bi teg ko si koom dafay metti torop ngir lan xaalis bi loolu noonu yëpp su ko defee nañ ko di sóoraale nit ki nag sa jikko moo lay may lépp loo xam ne bu nga ko waaye sa jikko tamit moo lay xañ lu seex kanam kon may ñaan askan bi ñu fexe rafetal jikko bi bu baax bu ñu rafetalee rek xale yu ñëw ci gannaaw dinañ fexe ñu tamit roy ñu mag ñi tamit dinañ xam xale yi fan lañ jëm waaye bu sa jikko baaxul rek nit di dinañ la daw sori la amewuloo ko alal nag ba ñu topp la ndaxte booba intérêt bi mooy bari rek te intérêt mu dugg rek yàq na kon bu defee ñu soraale loolu bu baax. Ah, jërëjëf ah, yaa oustaz si tontu leer yooyu waxtaan bi mu neex waaye te time bi dafa jeex foog ñu dog fi programme bi ba waxtu incha allah. gërëm oustaz di ko wax jërëjëf si time am bi bu mu jël di ñëw fii si Eco TV International di ñu jox this a very important sensitization about good manners lu mu wax fii dafa am solo trop jikko bu rafet dafa nekk loo xam ne dañ ko war a dundee dañ ko war a involve si suñu dictionary bi ñu try by all means ñu uh, practice yu baax yoo xam ne dafa am solo torop si ñoom te jikko bu baax diine bi la àndal dafa nekk loo xam ne dañ ko war a def si suñun dañ ko war a def si ñun ñu koo dundee parce que diine bi daf dafa dafa santaane suñ jikko bi mu rafet kon nag ah, ñu nekk di seetaan Eco TV International si waxtu bi si suñ programme yi waxtaan islam ñu leen di wax ne try leen by all means nga rafetal seen ci ko nga xam sa bopp nag ku nekk xam na sa boppa bu dee yaa ngi si loo xam ne nekkul lu baax xamal nga sa bopp kon nag war ngaa try nga improve sa bopp yóbbu sa bopp si beneen level boo xam ne good manners te dee du tango day xam ne yow borom ale la nekkoo borom ale di barki bi ma xam nga démb la vice président bi a dellu si borom kon ka kon vice président moo dellu si borom moo xam ne ñoo nekk jiiti réew mi hmm. kon ñun ñoo xam ne wi yaa noo yaa xam ne sax hmm. we can go at any time yal na ko yàlla xaare àjjana te hmm. jiigal ko bàkkaaram yi suuf bi oyof si si kawam incha kon daal ñu ngi try by all means ñu leen di wax ne ngeen ah, try di follow programme bi programme bi dafa am solo trop dañ ñu ngi waxtaanee suñu diini islam bi dañu sensitiser suñu bopp yi suñu bi waaye tamit suñu sista bu baax moom mu nekk suñu sista bi Fatou Kebe di madame Ba di ko gërëm di ko santa di follow ma programme bi always saa yu ma dugalee programme di koy seetaan ba pare mu call ma di ma encourage di ma wax li ma. foo war a improve an ak foo xam ne dama ko war a adjust kon ma koo gërëm bu baax a baax a baax mooy ice cream yi Jimba di ko ñaanal yàlla may ko ay njaboot yi barke incha allahu rabi all followers of this programme ma leen di gërëm di leen sant bu baax a baax waaye tamit balaa ñu génn si studio mi di leen di fàttaleeku ne programme bi mu ngi ut ay sponsor programme bi dafa soxla sponsor torop ñu leen di ñaanal ngeen ñëw ah, follow ñu Eco TV ñu ah, suñu waxtaani islam bi ngeen sponsor suñu programme bi parce que sponsor moo ñu dundal sponsor moo yóbbu programme bi ku interesting pour bëgg sponsor programme bi nga call numbers yu nekk si screen bi nga follow ñu also on all our social media platforms ñu ngi YouTube ñu ngi ah, Twitter ñu ngi Instagram ñu ngi Facebook all our programs are online mun ngeen ñu follow follow our programs they are very important and you can also share our programs to sensitize and also don't forget to subscribe the best International indi Gambie Eco TV is worldwide dinañ indi programme yi am solo boo leen di follow Eco International amul leen dara loo xam ne da koo rëccu kon ma leen di wax jërëjëf jëf à si seen time waaw balaa ñoo génn mu bàyyi ustaas ak askan bi waaw di waxaat alhamdulilahi rabbil alamin ci kaddu yi nga xam ne jàll na fi nii rek lépp loo xam ne lu rafet la rek suñu borom la waaye lépp loo xam ne lu si xaw a lente la rek si ñun ñi la ndaxte dañuy jàng nekkaguñ ñu nga xam ne maanaam ay professionnel la ay ustaas yoo xam ne ustaas yu mat lañ ndaxte ay taalibe lañ fu ñu toll nii si jàng lañ toll ak si train waaye ngir mun a dimbale nit ñi rek moo ñu tax a toog fii nii ndaxte askan bi dafa nit loo xam ne moo nekk ay nit ñu nga xam ne ñu jàng lañ ñu compétitif lañ ci askan bi pour ñu mun a dimbalante. loolu moo ñu tax a fii waaye di gërëm waa Eco bu baax international nga xam ne programme bu ñu def lu am solo la kon nu ko Mariama waxee rek ni ne ay sponsors ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi ñu def ci seen doole bu baax a baax a baax ndaxte nekk na loo xam ne lu am solo la waaw ah, di gërëm suñu waajur yi di sant borom tele bi di gërëm ñëpp ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan rek di nuyu suma anti bu baax muy anti Xadi Njaay moom nga xam ne anytime rek mu ngi suma gannaaw di bàyyi xel programme bu baax saa yu mu ko yu mu ko rek dama ko dee seen su ko gisee rek mu kontaan encourage wax maa ngi koy sant di ko gërëm ak mboolem mag yoo xam ne tamit ñu ngi koy seetaan ak suma gaay yëpp bu baax a baax maa leen di sante ñëpp suma limee rek juum waaye wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, ah, ah, bi mooy Ousmane Baye di ko wax jërëjëf di time bu jël di ñu film film yu rafet bi di ci ko bi yal na yàlla setal loxol bi suñu éditeur bi tamit mooy Aïcha du ma génn si programme bi te fekk santuma santuma ko di ko wax jërëjëf tamit time bu jël di edit programme bi ma ko wax jërëjëf bu baax Aïcha yal na la yàlla setal sa loxo bi incha allah rabbi may na kattan bi ngeen di defee seen liggéey bi suñu boos bu baax boobu tamit mooy oncle Sirifou Dabo di ko ñaanal di ko gërëm yal na ko yàlla jàppale ko si liggéey bi yàlla may ko dooleel bu moo def liggéey bi yàlla may ko fan bu gudda yàlla may ko wér bu yarama and then uh, mooy oncle uh, Ousmane Tunkara we are telling you always thank you very much for the cooperation we're so happy and proud of you Eco TV International comme ni ma ko waxee worldwide always follow us till next week another important topic of waxtaani islam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu